député yu Benno Bokk Yaakaar yi seen séminaire bi ñu doon def te tëj ko moom la l'observateur xëyti jiwaat ubbil yéene kay bi premier ministre Amadou Ba di candidat bu Benno Bokk Yaakaar journal bi nee nañu moo teewee woon tëjcal séminaire ba député Benno Bokk Yaakaar yi mbooleem lu leen mitti ci doxinu coalition bi yeggee nañu ko Amadou Ba ñaar fukki nit ak juróom yi jël kàddu gi ca ndajama ñoom ñëpp dellu ci jafe-jafe yi ñu am honorable bi ñu bari ci ñoom amuñu considération ci nit ñi rawatina ci ñun député yi wax nañu ci wàllu parrainage bi ba xamal Amadou Ba ne ni parrainage bi di doxee dafa yeex dafa géey santiruñu ko amul benn engouement liise ko bind ne député yu benno yi wax nañu seeni dëgg Amadou Ba nee nañ ko amuñu ay moyen ngir mën a dëkk bi wut ay parrainage sàkk nañu ci moom mu wax ak ministre yi ci gouvernement bi ndax dañoo seetlu ne ministre yi ci gouvernement bi ñu bari ci ñoom palaasam sursoi mi ngi ñu wax fi mbiri toll yëral xët mu njëkk yéen kaay bi Sénat daje nañu démb amal seenub assemblée générale amit ay ponk yu bari yu ñu fa waxtaane lu jëm ci kalaame gu avocat yu yi la ca Sénat di tontu sursoi ne nañu waa Sénat danañ ko bind ci lettre jox leen ko ñoo ngi bind tontu la seeni borom war nañ cee jot fii ak jamono ci jamono jooju le témoigne mi ngi ñuy xibaar ci xët mu njëkk ne am na lu mat ñaar fukki électoral yi ba léegi te justice bi sant ko ko bokk na ci ni ñuy alda alde ñi fare ci opposition bi ku fi bëgg a yëngu baa nga yëngal ñu aaye la ko ku aaye wal moomee la wala fi wax Karim mi waa këram yi di séntu boobee ba léegi ngir mu ñibbisi enquête dina kay bind na ne gaañ a ngi koy xàllal yoon wi Karim mi ñuy xaar ma nga toog ca Doha ca Qatar di doxal opération ñibbisi gi PDS teg enquête tegal ñu ci ne doomi lay Wade ji di Karim ca parti démocratique Sénégal te demoon am na ñenn ci ñoom ñu tàmbalee roñu di delluwaat ca parti ba Sada Ndiaye buub nay kaakeem dellu PDS Kalidou Diallo dajale nay dëbësam dellu parti démocratique Sénégal Sénégal njiitam di Macky moo ko premier ministre am Amadou Ba ñoo ci xët mu njëkk l'Observateur waxi koppar li yéene kaay bi di waxtaane ba di ñu wax ne taux d'endettement bu Sénégal kawe na ba jéggi dayo waaye loolee terewul état bi mi ngi wutaat at mi xaalis ña la koy lebal mën nañ cee laxas li ñu naan prime de risque ay risque tribune nee nañu weesuwul nit ñi tey la ñu a sonn Sud Quotidien nañu loolee waa FMI wax sax day bari na ay économistes yu nekk ci réew mi yu ci àndul bokk ci ñoom Maysa Babou ak Aboukan forum civil di ñoom Birahim Seck Sud Quotidien nee nañu ñoom li ñu bëgg nee nañu mooy 166 milliards yu ne FMI da ko lebal Sénégal ne état bu Sénégal mi ak FMI mi ko ko lebal taxaw wax nan la bor bi demee ñu dem Touba journal bés bi le jour xëy na di ñu jottali ndigal li bàyyee ko ci sang bu tedd bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides jëm ci ñu gën a wormal dëkk bii di Touba yéenekaay bi nañu Serigne bi aaye na fa football aaye na fa politique sàkku na it ci police ak gendarmerie ñu jàppale Baye Fall yi ngir ñu gën a mën a waggar ci li mu bëgg ca dëkk ba dëkk yeneen mu di Mboro ak Daaru Xuddoos Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne jàmm amu fa ne askano ñoo doon manifester ngir doon ñaawloo ko jéebaane gaz bay génnee ci usine bu bi industrie chimique du Sénégal ñuy noyuwaat gaz bu mu leen di jural ay jafe